fi amul RFM matin. RFM matin. émission Billet yeewu Sénégal. RFM matin 7h40 sunu gan docteur Abdoulaye Diop euh, alaikum. waaleykum salam. docteur do gan fi nak ndax bonne santé femme ajuma ju jot yaak Awa Mbaye yéen a ciy ñu la ci gërëm bu baax ndax 2017 ba légui ngay and ak ñun ci ci bonne santé femme ñu ngi nuyu Georges docteur Abdoulaye Diop ya jité wala yaay ñaaralu njiit vice président ASGO di association gynécologue yu yu da ngeen di waajal seen euh, quinzième congrès fukki yoon ak juróom juróomi ngi nii ngeen amal congrès am na lu ngeen ca door sax euh, démb war ko wéyal tey jàpp ci week bi euh, mën nañu xam ren docteur Abdoulaye Diop lan mooy fës ci seen waxtaan yéen ñi nga xam ne yéen ay gynécologue u Sénégal yi. jërëjëf Babacar jërëjëf Georges maa ngi leen di remercier di leen gërëm di leen sant effectivement kër gi moom sama kër la maa ngi remercier aussi Aw Mbaye xam ne depuis 2017 ñu ngi def RFM matin euh, santé chaque mhm. vendredi donc mhm. maa leen si gërëm di leen sant effectivement euh, suñu association ASGO depuis démb mi ngi def euh, congrès am suñu 15e congrès bi nga xam ne dañ koy def en collaboration ak beneen association bu de FIF Sénégal xam ne dañuy waxtaan chaque année chaque deux ans yi def benn congrès pour waxtaan ci suñu évolution ñuy liggéeyee donc thème bi utilisé cette année thème bi choisi cette année Moi, les bouleversements et évolutions en gynécologie obstétrique Euh, médecine muy doxé at euh, xarala yu bees yi at manière bi ñuy il faut que chaque année ñu taxaw toog xool par rapport ak xarala yu bees par rapport ak technologie bu bees yi garab yu bees yi at ñuy suñu biir xol lan mëna def pour améliorer qualité de formation qualité de soins yi dispenser population en matière de gynécologie obstétrique. mën nañ ko jappé ab mise à niveau mise à niveau permanent xam nga en matière de médecine moom euh, chaque fois la fait lu bees loo jàng en médecine au bout de 5 ans mën japp jàpp ne que li nga jàng li nga xamone xewina il faut nga jàngaat ko donc su nek da nga bëgg toujours nek à top niveau par rapport ak ce ligue il faut qu'en permanence nga nek nga de la mise à jour congrès bi nag dafa nek situation bo xamné en plus de mise à jour personnel bi ku nek wara def en tant que médecin c'est sa c'est fi ngay liguer euh, il faut qu'une fois par an nous nous ñu un partage d'expérience par rapport à ni ngay échanger certaines pour que ku nekk après soo des fi que am euh, population Il mhm. y tawat un gën euh, ci ñi ci gynécologie taw ci bari nañ ci wàllu gynécologie ñu jappé peut-être trois ou quatre nga xamné ci lañ gëna gynécologie premier bi moy infection premier motif de constatation bi jigéen ñi en tout cas deux premiers motifs de constatation soit infection génitale yi la doon wala douleur ak douleur bi ak lu mu fu mu mënti Comme que mu nekk douleur normale que mu nekk douleur endométriose mu nekk douleur bo xamné ne euh, am na benen pathologie bu ko laal ci ginnaaw yenn gis nañ tamit ne que de plus en plus yenn xeetu cancer yi ñu gëna law niñ euh, ko il y a 10 ans il y a 15 ans gis nañ ne que cancer yi ñu ngi yokku su état à yenn comportement yi nga xam ne femmes yi ñu ngi am peut-être par rapport à ça et peut-être yenn euh, réticences yi ñu am par rapport à certaines vaccinations qui sont proposées pour pour proposer une gynécologie obstétrique aussi pathologie a diabète par exemple hypertension artérielle Il y a une pathologie qui est trop trop trop situation à l'origine d'une morbidité ou d'une mortalité c'est encore très important. Mm-hmm. infection yi lan lu ko en général excès d'hygiène parce que ñu de dañu japonais que dañ ko raxas toujours souvent suñu def euh, bulletin RFM matin vendredi wax ne que awru waru raxas du perte blanche am perte blanche normal et de perte blanche c'est pas parce que am perte blanche que infection la dafa odeur mais su da nga bëgg di raxas tout temps di def gel intime di def savon di raxas ci di et cetera bu boba yow yaay déséquilibré flore bi nga

parce que c'est plus un problème de comportement ce n'est que comme nekk intellectuel ou pas ce n'est que da ngay def bain intime intempestif am de bon mot, à mon niveau socio-économique donc fait fépp la -hmm. gis naa ci thèmes yi ak sous thèmes yi sax yi ngeen war a waxtaanee ci congrès bi wàllu morbidité euh, jigéen ñi faatu ak léeg-léeg xale yi ñi ëmb war a juddu itam euh, faatu ANSD agence nationale statistique et démographique génne na yenn ci résultat résultats recensement bi ñu mujjee def euh, est-ce que xool ngeen loola ak itam euh, jigéen ñi nga xam ne ñooy ñàkk seen bakkan ci wàllu euh, maternité lu tax mu demee noonu na mel na ni lu wàcc mais ba tey mi ngi fi lan mooy causes yi. waaw morbidité mortalité maternelle bëri na ba léegi. Euh, c'est vrai que le na yu Sénégal def par rapport à Boubou, ba chiffre y a bi y a mon objectif ministériel pour le développement atteindre un mais les euh, ñu a wàññeeku na bu on est passé de plus de 500 décès pour 100 000 naissances vivantes à à peu près 300 pour 5 000 naissances vivantes donc wàññeeku na mais belé ëpp na. ëpp na de la santé ak partenaire au développement et ngi une stratégie pour le mën cause principale cause ñu retrouver par rapport ak mortalité boobu noonu wala morbidité bi première cause bi c'est les hémorragies hémorragie moom mooy première cause hémorragie mooy kuy peux dire sooy wasin xëpp peut-être bon mën na jóge ci hypertension artérielle mën na jóge ci pathologie de hématome rétroplacentaire wala lépp lu nga xam dal daal mi indi euh, mi ngi tax yow nga mën a euh, xëpp deret bu bëri su nekkee tamit ëmb yi dafa jegeyantoo trop trop et eh bien ëmb bu jegeyantoo dafay def ben facteur de morbidité pour que ay complications ëmb boo neef mu ëpp complication ëmb boo neeful loolu le tax aussi ñuy def accent sur politique de planification familiale mais nee na ëmb yëpp léegi euh, grossesse à risque la ëmb yëpp am danger effectivement mais le fait que nga enchaîner deux grossesses successives en moins de deux ans dafay def yow sa yaram si boppam pour accueillir une grossesse et donc risque de complications. yi mi petit am ci deuxième un bi moo risque de complication un petit am ci premier ëmb bi deuxièmement am na pathologie yoo xam ne suñ ko pendant la grossesse ci biir ëmb bi ci consultation prénatale yi feebar euh, hémorragie bobu non dik ci. ñan la ñan la nef warul ñi def césarienne wala ñi euh, wasin normal. neef baaxul le toute nga def césarienne nga ñak def césarienne neuf ba euh, gënul mais so nekkee da nga def césarienne c'est encore plus risqué parce que bu ce sa butu jurukaay opéré nañ ko amna ben cicatrice bo xamné ne bàyyiwuloo ko temps mu cicatriser complètement bu boobaa soo jëlee ëmb ci kaw neuf mo gën dangereux que nga jël ëmb ci bo xamné ne bi wasin normal la cancer gynécologique yooyu cancer mammaire yooyu est-ce que situation bi dafa alarmante fii au Sénégal situation bi alarmante na alarmantul li ñuy remarqué mooy cancer gynécologique suñu jël exemple ñaari cancer gynécologique par exemple cancer du col de l'utérus xam ne moo gën a simple hmm. parce que xam nañ cause bi cause bi c'est un virus qui s'appelle HPV human papillomavirus te am nañ vaccin pour éviter euh, euh, euh, cancer boobu noonu pour autant ñu gis ne que cancer mi ngi yokk ça veut dire qu'il y a un problème soit il y a un problème de communication au niveau des médecins yoo xam ne communiquer suffisamment pour patients yi mën def seen vaccination ou bien il y a un problème de de de réceptivité au niveau des patients yi nga xam ne bu duñu bëgg def seen vaccination parce qu'il y a des rumeurs comme quoi on soit vacciné, vaccin, il y a des complications et autres, alors que scientifiquement, il est prouvé que le vaccin a une efficacité. Si en plus, euh, dernièrement, actualité, il y a certaines pratiques def notamment ce fameux tabac, il pour améliorer la satisfaction sexuelle, ou il y a une safsafali, il y a toujours pour améliorer la satisfaction Mais le grave là, hein, tabac, y euh, euh, est-ce que amna une études sociologiques qui expliquer lu tax jigéen ñi jëfandikoo loolu ci seen kanam. le phénomène de baisse. au niveau du sud du pays il a commencé Il a commencé là au Sénégal il paraît que maintenant c'est en circulation et libre à Dakar c'est pour ça que nous tirons tirer la sonnette d'alarme d'alarme pour sensibiliser population et sensibiliser évidemment autorités pour que nous mettions un frein à ça parce que l'extraordinaire, le graal C'est le du du dafa nekk un facteur justement d'avoir contribué à exploser l'avènement des des cancers y a euh, mbir ba pare di ko def seen kanam li gën a garaaw mooy def seen kanam parce que benn association la boo xam ne tabac la cigarette la nga boole si xeet yu mel ni cocaïne wala yu mel ni même xeme pour que nga mën yëg yëg sa yaram te sa biir kanam sa biir awra nga ko dugal loolu moom dafa jéggi dayo sànq wax nga wax yi lu jëm ci wàllu vaccin yi rumeur yi di gën a accentuer problème yi est-ce que leneen aussi mënuñ ko caa yokk xëy na kersa gi nga xamante ne ñenn ñu ngi koy am pour dem seeti nit mu lay consulter ci wàllu wàllu sa awra. c'est possible loolu mën na nekk mais xam nga en matière de santé surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàngut. en matière de santé euh, pyramide sanitaire Sénégal c'est tellement fait de telle sorte que am nga am accès ci ki nga bëgg mën nga dem gis gynécologue mën nga góor mën nga jigéen mën nga dem gis sage-femme mën nga dem gis médecin généraliste mën nga dem gis infirmier donc at mën mënti nek mu nek hôpital de niveau 3 ba poste santé case de santé bu gën a mën nga fa gis ko xamné xeyna euh, euh am nga confiance yu pour mën waxtaan ak yow sa wér yara wala su nekkee compétence am mayna la ko ko ko mu mën la examiner amna sax badina gox yi nga xamné ne ñu ngi dugg ci dëkk bi di waxtaan ak jigéen yi di waxtaan ak population yi pour sensibiliser mais rumeurs en toute chose même at lu mënti nekk rumeur moom du fi jógee Sénégal déjà dëkku rumeur la donc euh, il faut juste que médecins yi de di discuter ak population yi lever doute yi mën a am c'est tout à fait légitime que nga am ay doute par rapport ak loo xam ne dañ leen suñu ko vacciner pour mu protéger la dans vingt ans dans trente ans mu ngi seen doute c'est tout à fait normal am na surtout que amul garab sans effet secondaire que mu nekk vaccination boobu noonu que mu nekk paracetamol booy naan sa bopp méttee wala mu nekk loo mu nekk mën am effet secondaire mais lépp loo gisee waxtaan la te suñu defee sur la balance le bénéfice risque xool par rapport ak ban bénéfice nga mën am par rapport population yi at ban risque nga mën jël soo vacciné ce doom wala nga vacciné sa bopp évidemment bénéfice bi mo ëpp meilleur yoon. Mhm. leen lo xamni tam euh, yité la ci ni moy liñuy wax euh wax euh, jaasir euh, mën na doon lu sax mën na doon lu ñu mën fajj faj fu mu toll ci réew mi jigéen ñi nga xamni bëgg nañu am dom te mënuñu ko am te li ko waral bëri. justement jaasir boobu noonu même yow en tant que journaliste bi ñu koy présenté yaa ngi présenté comme ci lu nekk ci alors que normalement justement présentation. voilà li ñu war a def mooy Diassi problème de couple et conception boobu ni que toujours Diassi d'abord ci jigéen ñi moo tax y a encore beaucoup de choses à faire heureusement mentalité a changé ñu seet suñu congrès bi ci par rapport à infertilité du couple kenn dootul wax infertilité de la femme parce que soo jëlee fukki couple yu mënul am doom ñett ni ci qui bi la jógee ñett ni ci góor gi la jógee ñett ñi ñoom ñaar am problème et donc suñu dafa nekk prise en charge obligatoirement affaire de couple et donc am na jéego yu bëri yu def par rapport à ça li des tuddee PMA procréation médicalement assistée ñu gën ko xamee ci fécondation in vitro am Sénégal depuis longtemps depuis très longtemps a des résultats yu bar yu résultats am au niveau international et euh, justement congrès même même docteur mom, da concert euh, en fait nous ñun ñoo ko Le problème bi le euh, Sénégal et Afrique en général taux de fertilité est de et donc produits utilisés ñu pour des paiements pour des couple yi nga xam amul bonne politique de santé bu koy soutenir de telle sorte a une bonne subvention par rapport à ça et donc tous ces produits là à l'étranger jógee ci loolu moo mu cher suñu la que 2 millions 3 millions lay jar du 2 millions le 3 millions boy fay médecin bi mais garapi ak produits produits chinois utilisés à analyse yi ñoom 90% du prix Les produits produits importés ont encore taxe sur le gouvernement bi à cause peut-être de pression ou de développement de développement. Ils ont ñu développer euh, à cause de justement une euh, euh, fertilité élevée alors que ce n'est pas normal mais loolu yëpp ñu pour que le gouvernement bi def nous nous su un docteur wax ci lu parce que nee légui les euh, li gars li nit ñi gën a nemeeku moo euh, voie normale bi bëreetul pourquoi par chirurgie par intervention <laughs> déedéet lolu rumeur la rek voie normale mo mo bëri jusqu'à présent si nous regardons statistiquement parlant au Sénégal le taux de césarienne c'est de moins de 10 ah ce qui veut dire qu'il y a 90 des gens qui accouchent par voie normale et d'après l'OMS si un pays a un taux de césarienne inférieur à 15 ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du système de santé la preuve on dit que nous bëri yoo accouchement où ñu fa jaaree pas de bakkan wala ñàkk seen doom wala de fa jëlee fa am ay fistule wala ñu mel ñooñu bénéficier de césarienne est-ce que vous pouvez bëgg wax ne césarienne moo non, moi, au Sénégal, mon J'ai dit qu'il faut que déclaration soit posée su nekkee yow da nga war a wasin il faut que médecin bi wala sage-femme bi le suivre xool ban voie de d' accouchement moo gën a sécuriser pour yow su nekkee sa bassin dafa rétrécir sa digg dafa xat wala xale bi dafa ñëwee wet wala nga am ay eh, hypertension artérielle wala nga am yenn diabète xëy na césarienne mooy gën ci yow mais su nekkee amul benn problème pour nga mën wasin nga wasin moo gën ci yow te sax accouchement par voie basse moo gën césarienne léegi nag phénomène bi ñuy gis mooy peut-être en ville avec euh, système de référence hôpitaux de référence il est évident que foofu noonu seen taux de césarienne mooy mooy gën élevé que taux national bi mais le taux national de césarienne tourne autour de 10%, ce qui est inférieur au taux recommandé par l'OMS. ñi nga xamante ne ñoon ñooy ñàkkee seen bakkan ci accouchement bu ñu xoolee évolution réew mi dafa gën di yokku wala dafay dafa wàññeeku dafa wàññeeku dafa wàññeeku bu baax sax wàññeeku parce que ñu ngi jóge woon avant ñu objectif du millénaire pour le développement ñu ngi woon ci côté 900 décès pour 100 000 naissances vivantes instant yi ñu ngi ci à peu près 263 décès pour 100 000 naissances vivantes donc jóge nañ 900 wàcc ba 200 mais ba léegi 200 dafa bëri loolu lan moo ko waral facteurs yi bëri na principaux facteurs yi mooy retard à la consultation am na ñoo xam consultation prénatale duñ ko def à temps ñu bëri déjà Sénégal fii euh, aada la que soo ëmbee nga nëbb sa ëmb ba jusqu'à ce que ëmb bi xaw a fës boobu mënutoo ko nëbb te bu boobaa am na yenn xeet feebar yoo xam suñ ko teeloon gis début ëmb bi mën si jëf pour bañ am complication fin grossesse deuxièmement du ñëppay def seen constatation prénatale normalement quatre constatations yi ñu waxoon léegi pousse na huit constatations prénatales déjà quatre yi ñëpp daan ñu ko def légui huit il est évident que mu ngi noonu troisième bi encore xëy structure de sanitaire yi bëri nañ mais doyul pour pouvoir prendre en charge patient yi yi hmm. par rapport à pathologie yi di ëmb di ko neub naan da ngay moytu bët ak làmmiñ mom lool mom du xam-xam waaw loolu moom amee aada loolu moo fi am. malheureusement chaque jour bët yu mel noonu nga koy nëbb bu a fësal su nekkee da nga ëmb tamit ëmb bi woyof mu gën a téye nga koy nëbb mën nga dem ba commencé saigner xëpp deret bu baax mm-hmm. euh, ci seen seetlu ak seen liggéey ak xëy na xayma yu ngeen def

c'est-à-dire euh, officiellement ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de 14 ans de rapport sexuel mais un âge moyen il y a def première situation de mariage précoce euh, am na yenn a maye ñuy teel a maye ci culture yi ci yenn ethnie yi et euh, euh, aussi développement modernité ak accès nouvelle communication internet bi tax na que. xale yi ñu mayeewul tam te ñu ñu nekk ci yëfi xale. loolu yëpp loolu yëpp mooy tax justement âge boobu nekk 14 ans loolu moo justement vaccination bi ñu proposé pour éviter cancer de col utérus ñu koy def avant l'âge de 14 ans au mieux même si on a mën nga après 14 ans mais li gënoon des nga sa vaccination d'homme pour mu bañ cancer du col de l'utérus avant muy son premier rapport sexuel tout en sachant que même si on am rapport sexuel ba pare mën nga mais vaccination mais y a d'autres conditions léegi euh, aussi grossesse le taux de fertilité c'est en moyenne 4 à 6 euh, enfants par femme c'est-à-dire si les statistiques des statistiques, ñeent wala 6 d'homme Si ñu am ci kaw loolu wax nañ ko sax am plus de 6 euh, plus de systèmes statistique ASGO, l'Agence euh, statistique nationale, Amnenko, le gouvernement, le ministère de la Santé, nous sommes liés. Nous avons multiplié de multiparité. Ce n'est Il y a plus de 4 d'hommes ou plus de 6 d'hommes. Il y a risque les d'hommes. parce que su butu jurukaay dina sonn benn peeru sonn boo xam ne moog veeru montre ñoo yem et veeru montre gis nañ ne du du lu dëgër donc mën facilement mën nga am yenn complication yi yenn xeetu hypertension artérielle yi yenn xeetu xale bi judd at yenn laago yi yenn xeetu diabète yi ci ñoom la gën a yomb yenn xeetu hémorragie yi ci koo xam ne ñett wala ñeenti doom ci la yem. comme la mhm. limitation des <laughs> mm, mais loolu nga loolu nga ni dénoncé non tubaab yi bëgg a imposer. Euh, ci àddina ci Afrique euh, nit ñi yemale njur gi lool tam. Euh, d'accord leen ci ñun waxuñu limitation des naissances espacement des naissances la ñu bokkul. espacement mooy mooy ñaataat ba ñaataat. ñaari at su nekkee da nga bëgg a ëmb ëmbaat. loolu kay moo fi bëri nag docteur. waaw su nekkee non à partir de soo wusinee war nga xaar deux ans balaa ngay ëmbaat. Ah. à partir de deux ans comme Nicolas, ko qui dit ci deux ans entre accouchement et un homme c'est deux ans à partir de deux ans c'est nga mais c'est un alors que deux ans est matul neef eh, eh, jumtukaay qui a ci ñi bëggul jël eh, matière de contraception yi a pilule at euh, méthode longue durée manam maanaam piqûre bi wala implant bi ñu def ci loxo moom quatre méthodes de contraception yi nga xam ne ñoo gën a fës ci dëkk bi. Mm-hmm. dégg na la ci bonne santé sànq nga ne nag euh, du garantie 100 pour cent. amul benn méthode de contraception bu garantie à 100 pour cent. que mu mm-hmm. nekk pilule que mu nekk préservatif que mu nekk implant que mu nekk même méthode naturelle yi ngay calculer amul méthode de contraception bu garantie à 100%. Mm-hmm. méthode bi gën efficace 99% de di garantie. ba ñaata jigéen mën na jël ëmb docteur. théoriquement tant que ménopause wuloo mën nga jël ëmb maintenant te fertilité a capacité bi nga mën am pour am doom à partir de l'âge de 36 ans dafay wàññeeku mais mën nga ko nay am patient yi gëna a âgé yi ñu gis ñu am nañ ko recette dina dem bay 46 ans 47 ans ba 48 ans àdduna sax dañuy ngay gis cinquante ans mu jaaxal ñu lool man man lu ma nekk la. personnellement mosuma ko gis. en ah. ans moi j'ai jamais encore vu dañ ciy dégg que patient yu am que 50 ans grossesse mais personnellement en 20 ans d'exercice mosuma ko gis. Mhm. jërëjëf docteur Abdoulaye Diop congrès ASGO seen association gynécologie Sénégal na nga xam ni yow yaay vice président bi congrès bi tàmbali na démb euh, kañ fan ngeen koy euh, amalee ci Ndakaaru fii. congrès mi ngi amee euh, King Fat Palace foofu lañ koy defee depuis démb. ba mhm. suba incha allah ci lay terminer. incha allah jërëjëf docteur Abdoulaye Diop gynécologue. Euh, sunu dog gynéco ci matin ci bonne santé femme merci jërëjëf euh, Georges jërëjëf euh, lu se fait une peau neuve à partir du premier